asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveillé conscience euh, mënuñoo noppi ndax nit ñëpp buñ ko bokkee def buñ ko bokkee def euh, musiba naarulaahi bii nga xam ne moo yóor réew mi ñun ñëpp daañ ci bokk tàbbi moo tax dafay dagan nu euh, jóg di wax suñ groupe bii nag yàgg na yàgg ndax ban commencé léegi daanaka fukki at yi passé na ko teel na commencé lool te lu jiitu loolu suñ xalima mësta fer Akhenaton dafa am solo ci xeex bi Akhenaton dama ko xam moo tax may wax ak yéen Akhenaton dee leen ko dégloo am xel képp ku fanatique ku fanatique doo ko mën a déglu nit nit un patriote surtout dafa war a demee par des arguments l'intelligence dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg boo ko bëggee am par des arguments ko mën a awe ñi muy dégg ay kàddu weddi ko ñi muy gis nit mu def doyula nga wax ko gëstu ji bu juba moom dikk jox ko loxo Akhenaton yàqut day defar dama bëgg déglu ko te di ko dégloo toujours xel Akhenaton bu dee ko ne woon duma ko ci bàyyi Ousseynou yi xam naa ko bu dëngoon bu dëngoon wax leen ko ku jub la ku bëgg ak njabootam la ku integre la ku am fit la ku jàng la ku mën a déglu la lii muy wax lii muy wax fu wér la ko jëlee waaw rakkam mi ngi ci kaso bi tëdd waaw te Ousmane so mbiri Ousmane Sonko tax tax ñu denc ko te c'est un haut fonctionnaire dama ne Akhenaton lii mu wax lii mu wax déggoon nañ ko ndaxam waaye moom pédagogie boo xam ne man na koo leer ba mu dugg ci seeni xel seeni xol Macky Sall dana taal réew mi dana taal réew mi yéen xamul lu xew waaye naa leen bàyyi Akhenaton euh, wax jii mu wax ngeen déglu ko ba noppi ngeen Sénégal ñu ngi leen di nuyu leen ziar leen jox seen wàccuwaay ci wax ak yéen Diakhanétone di leen xibaar bu urgent boo xam ne léegi lañ ci jot muy xibaar boo xam ne ñu nekk ci biir nguur gi ñoo ma ko yónnee di ñoo xam ne ñu ngi seen biir liñ may yëgal mooy Amadou Ba Julle dafa togg ay résultats yu mu préparé moom ak ambassade de France ak ambassade de Belgique ak yenn ambassade yu Union européenne yi ñoo ko jàppale ñu defal ko ay résultats yoo xam ne day jàll premier tour 50 virgule yoo xam ne jotewul dara ak vote bi ñu war ko génne jaarale ko ci média yi wala fajri TFM ak média yu bari jënd na leen fi mu taxaw di xaar pour que bu ñu voté ca ngoon sa ñu génne résultats yi forcé ko yenn juges yi jàllale ko Moussa Fall bi nga xam ne moom dafa dégg maam Amadou ñu forcé ko mu jàll ci li nga xam ne mooy fraude électorale loolu nag préparé nañ ko ba pare yenn ambassades yi France Belgique ak yenn dëkk Union européenne yi Pays-Bas tout ça liggéey nañ ci ba takk nañ ko loolu ci loolu Amadou Ba moo tax mu jàpp day jàll au premier tour dem RFI ak France 24 dem taxaw naan effectivement moom day gagné premier tour les résultats yi yi ñu ko tabaxal tegal ko ko dañu nar force tasaare ko Sénégal gépp jóg massivement protéger suñu ay vote Amadou Ba am na ay résultats pare moom xam na ne mënut a gañe gañe gi mu jàpp koy def ni ko teg ci sàcc ak jaay doole ak ànd ak général Moussa Fall lii ma leen wax lu jóge ci kaw lu leer nañ la loo xam ne amul benn sikki may wax ñëpp sénégalais yi nañ ko partagé ba ñëpp jot ci te ngeen mobilisé wu jóg dem jëli seen carte yi le février ñu voté massivement 75 80 90 pour ñu am taux de participation Macky Sall soppi na yi njuuj njaaj def ay nouveau redécoupage de 53 yoo xam ne dañ leen déplacé ay électeurs ainsi de de suite Amadou Ba ak Macky dañu xuloo France moo nekk ci nañ jóg dañu naagu bi bàyyi xabaabal bi jàpp ne gañee guñu dara wax naa leen ko du yomb ci ñun duñ ñu ko yombalal nañu bàyyi naagu bi te jóg kii wax ak yéen di àggale loon ngeen partagé ko ba Sénégal gépp jóg ci te ko dégg nañ ko jàllale te xam taxawaay bi nga war a taxaw mobiliser say ñooñ sa waa say dëkkandoo sa village sa commune say xarit say mbokk na ñëpp jóg taxaw jëli carte yi ñu fas yéene làbbali incha allah rabbi euh, loolu sottiwul Macky premier ministre bi nga xam ne premier ministre Amadou Ba léegi Macky dafa motion de censure bi ñu voté motion de censure bi daanu gouvernement bi daanu Macky Sall wàcce ko crise yu mag moo am Sénégal crise institutionnelle crise politique crise économique crise sociale crise yëpp bu ñu deful ndànk daañu taal réew mi Macky Sall ak Amadou ak ñi ñu ànd ngir bëgg fee toogaat xëccoo am réew te lii lépp musiba jur ci réew mi mbokk yi ñun duñ toog fii lu ëpp fukki at ne di rayante ak état waa état bi ñu ko ànd ak nun ay xariti Macky Sall yi mi bokkalub lal di fanaan din informe yu di leen informé ñi ne ci gouvernement bi laa wax information buñ jot ñoonu ko jox ñoom ànduñu ak Macky Sall mais seen biir ak seen tubéy ak seeni soxna ak seeni kat kat ñu leen bàyyi ci Macky Sall Akhenaton dee leen ko déglu dee leen ko déglu am ñu naan lañ koo fay ak dañ lay jox xaalis ak di fen fen yooyu ñi bëgg ay vues ñoo koy def waaye kuutul vue kuutul vue te deme sa xel académique li académique li ngay déglu ah tey lépp nga wéer ko ci kaw xam-xam ak science bañ a tappale danga ne Ousmane Sonko li wax dëgg la li mu woote dëgg la te Akhenaton miit ku bëgg Ousmane Sonko la ku bëgg Sénégal la Ousmane Sow xoola du caagan da war bëgg Pastef red bu Pastef da ngay bëgg ah man j'aime tout le Sénégal et j'aime tous les partis waaw ñëpp laa bëgg Sénégal yëpp laa bëgg kaay lu joxante loxo nu ànd jële fi Macky sàll jële fi nuy ordre mondial laïcité bi ay jullit ngeen ay jullit ngeen di ngeen ay yéeféer na fi laïcité bi jóge laïcité bi jële leen ko fi ngir yàlla yont bi te ngeen di làkk wolof ak haalpulaar les langues national dafa jot dafa jot ngeen moom seen bopp Akhenaton wax na bay bëgg a dee waaw wax na bay bëgg a dee dàq gi mu dàq wax ak gëstu gi mu dàq gëstu la ci ëpp moo tax ñu eñaane ko te ak soxor baaxu soxor day yàq kaay lu ñu ànd jëli fi Macky Sall seet leneen dañuy def le projet est sur la table Akhenaton continuer continuer di càmbar gouvernement bi say xarit képp ci nekk ah, ay promotionnaire bi rek nekk ci gouvernement bi aqitun lépp lay dégg ba ci armée bi gendarmerie bi may leen ko nopp comme xaru na toog France dinañ leen joxe information nañ koy déglu nañ koy déglu aqitun ay vues yëkkatiw ko te du moom dong ah xale yëpp ngi góor góorlu may jégal bu baax nag man a Seydina Ousmane pour le de des consciences peace and love peace and love yàlla nañ buur yàlla sutural te tàggaluñu ak suñ noon yi tàggaluñu ak Macky tàggal tàggaluñu ak tubaab yëpp ban mën a am suñu indépendance totale peace and